bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asafil mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyuwaat baax di sant di fàttali rek ni barab boo ca demee dafa am solo torop nga fexe ba lu baax lu fay wàcc topp la fa ndax dañuy faral di wax ci wax wax ji lu bari naan fa inna dhikra saalin tansilu ar rahma fàttaliku gaa yu baax yi buñ koy def suñ boroom yërmande suñ boroom dafay wàcc waaye yërmande suñ boroom nag buy wàcc ca kam tax jóg lay wàcc waaye kam ka ka nga xamante taxu kaw jóg moom du ci wàcc lu ma ta bàyyi xel la maanaam barab boo fa demee bu dee événement yu mel nii wàllu ruux moo ñu fi indi waaye wàllu lu jëm suñu yaram indiwuñu fi ndax leen lu ci ne bàyyi nga ko sa kër bu mu waxee wàllu ruux li ma jublu mooy loo xam day dundal sa ruux bu ëllëgee boo fa jógee dellusiwaat te jàpp naa ne soxna jaara bu ñu koy fàttaliku ku ne lañu war wax dalal ba mu des soxna yi te dafa mel ni saa su ne suñu wax foofu la wax di jógee bis la boo xamante ni yéen a ko moom kon jàpp naa ne teewle gu ci yéen la war a gën a ëppee te soxna jaarat nit la koo xamante ni ku ko rey de raw say moroom ndax fanweer at ak ñett am seexul xadim seex soxna maam soxna faati mbàkke ak sëriñ maamoor soxna ak sëriñ abibullahi sëriñ Tuubaa muy koo xamante ni lim ñu indi rekk doy nañu kon nañ war nañoo xam tànk yi soxna jaara jaaroon mooy yan bu xamee ñu ba boo ñu topp ko ndax suñ boroom ñaar la boole mooy àddina ak alaaxira te xamaliwu ci góor ak jigéen man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun falanuhyiyannahu xayaatan tayyibatan kon barab yu mel nii buñ ci dikkee war nañoo bàyyi xel baax a baax ba ñu jiital àddina si jiital yàlla te xam ne ku jiital yàlla bu ëllëgee suñ boroom naa xam ne suñ borom dina la fay am na fi suñ tubaab di waxee naan nit ki de war nay jëf àdduna lu mu fi jëf war na koo xeeb te boo xam ne yomal xeyam bu demee dara du fa doy kon nañ gën a sàmmaat jataay yi te xam ne àdduna kum tax a jóg bu ëllëgi di ko réccu nañuy def ngir jëw ci laahi jataay buñ ci teewee nañ koy teewlu te xam ne lépp lu fay teewlu wut de bu ëllëgee di nga te Sëñ Tuubaa mi ngi wax ci jawar ci masaalikul jinaan naan yowmal xiyaam boo demoon laaj ñi tëdd lan lan ngeen gën a bëgg ci kaw seen bàmmeel yooyu moo ne dellu àdduna donte benn seconde la ñu jëfa lu baax kon jataay yi nañu bàyyi xel àdduna dafay jeex kenn ku ci ne am na àpp boo xam wóor na lu doo fekk ña juddoon ay mille neuf cent na ay 18 ak yu demee wóor nañ ne 2000 du leen fi fekk ñun ñit wóor nañ ñi lay ñëw duñu fekk adduna moom lu waaye gàtt gàtt xel xam ne kenn ku ne soxoo fi ndax am na am nga dig boo xam wóor na loo loo mën a jéem a jëf lu baax te sëñ bi bu ñu ko dégloo jàpp naan loolu dina gën a yaatal nañ ànd ak dal ak teey te xam ne yowmal xeyaam mi ngi ñëw lépp lu fi waay jëf dañ nga ko fekk lépp lu fi waay jëfut doo ko fekk adduna amul solo lépp lu waay di jóg ngir di ñu gis la ci àddina rek ne la wóor ne bu ëllëgee xaba an man sooran lay nekk pënd bu ñuy saar kon ñu dé dal ak déglu te bañ jiital àddina tey jiital yowmal xiyaam jéglu baax nag dëgg moom amuñ fenn fuñ koy ragale waxee sàkkuñ ci ku ñu tàgg sàkkuñ ci ku ñu mere xul xaq min rabbikum fa man saa afal yawmin wa man saa afal yakfir kon sëriñ bi ñu ngi lay dalal euh, di la sant baax it ci pas-pas bi nga xam am na ak dogu amoon yéene ñibbi avant bis bi ñëw biñ ko sàkkoo ci yow nga def ko loolu war naa ni liggéey bi ñor na la te jàpp naa ne ñi fi nekkit waru waru leen a gën a ñor ñor gi mooy li fiy wàcc ci lu baax ni ñu di ko déglu di ko teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi kon bisimilah auzu billahi samil alim min rajim bismillahi rahmaani rahim إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa usalli wa usallim ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa taabiciina wa man tabiahum wahtada bi hadiyihim waxtafa athaarahum ila yawmi din mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di am mbégte ci teewe jataay bu tedd bii nga xam ne jataayu yërmande la jataayu fàttaliku nit ku baax la jataayu soññante la ma bëgg ci loolu nag ma itam ndax defe naa ne comme ni ko sëñ Mourtala ma sa waxee benn benn yoon rek nee na jógee bopp dañ ko yërëm ci coono bi ak mettuwaay bi mu ne jóge Sénégal ñëw ba ba ak ni mu soree def fi benn waxtu képp yàlla jubal fa benn nit képp wala mu dóor ko ci lislaam lu jar na ko mu delluwaat kon loolu muy lu am solo loo xamante ne ku woo nit ci liggéey bi nga xamante bi mooy liggéey bu lislaam di liggéey Sëñ Tuubaa loolu defe naa ne euh, bala nga ko cee woo sax yow da ko cee war a fekk ci biir kon may itam maa gën a am mbégte ci ci teew fii tey ndax bi ma ko soxna astu waxee moom fekk na booba xëy na programme naa yu bari ba ba war a dem waaye ma daal di ko wax ne ko dinaa incha allah am na ci yoo xam ne su ma ko manee eh, tuxal rek bu soobee yàlla dinaa daal di kii far ma daal di ñëw daal koy doxale noona toog ngir fekk bis bi muy eh, ma am ci mbégte nag bu baax kon defe naa gannaaw koom guddi na xam naa ne dañuy soññante tuuti rek ci liggéey bi rek di gën a soññante ci ñu gën a sax ci lu baax te gën a jàppoo gën a ànd gën a doon benn gën a def suñu objectif muy liggéey liggéey lislaam te nag jaarale ko jàngale Sëñ Tuubaa defe naa ne bis bi nga xamante ne xëy na soxna yi ñoom ñoo ko sabab te euh, sëriñ yi itam ànd ci ak ñoom ci comme ni soxna yi di ànd ak ñoom ci lépp loo xamante ne ñi ngi ci ndax defe naa ne lu bari ci loo xamante ni góor ñi ñu ngi koy def soxna yi dinañ ca farewoo loo xamante ne daanaka du mën a ñàkk te ñoom ñoo cee taxaw taxaw boo xam ne buñ ko bàyyoon mu soxee kon tey buñ demee ba ba taxawal ñoom itam seen bis euh, bu ko góor ñi ànd ak ñoom itam ci àndin wa gën a rafet loolu day wane rek ne loolu moom moo war moo jaadu waaye li xamante ne moo tax lii gën a am solo mooy bu ngeen seetloo fii ngeen nekk rek wala muy Sénégal wala feneen am na fa ay nit ñoo xamante ne buñ dee rawatina buñ dee ay jigéen xañ xëy na la nekk di ca ñàkk seen alal di ca sonn di ca ŋar-ŋar yi lu jëmul ci yàlla la yàlla gërëm loowu ko ay fo ay caaxaan dégg ay yàq seen alal ci loo xamante ni bii dinañ ci am coonaw yaram dinañ ci am li nga xam ne mooy coonab àddina am ca coonab koom-koom te duñ ci am dara ci lu baax loo xamante ne dina leen ca fekk xanaa kay ay daan lañ cee am ëllëg te itam rëccu bañ cey war a rëccu ak résultat yi lañ nekk fii ci àddina lañ ko njëkk gisee bala ñoo dem àllaaxira kon yéen bu leen yàlla xëyree ci nekk ci lu baax di def lu baax di woote lu baax dégg nga euh, kon loolu tawféex la te defe naa ne fii ngeen nekk rek du ñàkk fii ñoo xamante bi xëy na sax man ngeen bañ a soree ay ay ay ay culture wala ngeen di gi xëy na ñoom la ñuy nekk fukk yu ñu wootee man nga ne juróom-ñeent ya lenn lu yàlla gërëm loo nekku ca te itam lépp ay pola ay caaxaan kon yéen bu ngeen jàppee ci lii nekk ci muy lu baax kon ngeen war a gën a góorgóor lu baax ndax loolu képp mooy li am njariñ loolu képp mooy la am njariñ kon tey comme niñ ko waxee loolu duma ci delluwaat ñëpp xam nañ importance bi nga xamante ne bii moom la jigéen am ci lislaam moom la jigéen am ci àddina moom la jigéen am ci l'humanité maanaam lépp loo xamante ne bii loxoom génn na ci rek kon dina doon loo xamante ne dina euh, sooxe ndax comme niñ ko wa ni ko waykat ba waxee nee na bu fekkente ne bii eh, préparé nga nee na jigéen dafa mel ne maanaam ab eh, nation boo xamante ne bii boo ko waajalee préparé ko rek mel na ne defar nga toute une nation maanaam loolu nag muy lu am solo ndax ki nga eh, mooy première école bi nga xamante ne ci la doomu aadama di jaar bala mooy dem ci beneen école bi yaayam moo koy yar teete ko mu jàng ci moom ay jikko euh, balaay dem di ko di ko jàng ci mbedd mi mbaa mu di ko jàng ci baayam sax kon loolu di lu am solo kon bu ngeen àndee ci di fàttaliku maam jaara di ca roy di bëgg taxaw ci liggéey bi ñu ñuy liggéey da ci turam loolu du lu woyof lu rëy la kon nag defe naa ne tey bu fekkonte ne kenn ku nekk da ngaa jóg ngir defal sa bopp wala nga xëcc sa bopp wala sa bopp tax laa jóg nu ne mën nga koo wone nu ne mën nga koo doon mais maa ngi defe ne bu ñëpp xoolee ci ki ngeen di def su boobaa kenn wërta gis sa bopp kenn wuru ci maanaam euh, xëy na féewuloo kenn kon ñëpp dañoo war a bokk euh, li nga xamante ne bi mooy objectif bi muy roy ci ki nga xamante ne mooy maam jaara jéem nekk ci donte sax mënuñoo yegg ca moom fa nga xamante ne fa la àggoon waaye ñu jéem a roy suñ kémt lay kattan ak kem luñ tollool ba tey li ñuy def bu àggee ca moom du ko rejeter dina ko bëgg ndax kat lépp lu ñuy def di ko defal maanaam nit ku baax maa ñu ko def ngir yàlla buñ ko defee te defuñ ko ci ànd defuñ ko ci booloo defuñ ko ci yéenante lu baax dégg nga defuñ ko ci bi yar defuñ ko ci bi teggin defe naa ne loola la cay mujj jur mooy ab coono kese boo xamante ne bii maam du mujj fenn kon nag yéen defe naa ne yàlla musal na leen ci loolu kon na ngeen war a gën a góorgóorlu te xam ne loolu ay ay ki ngëneel la yoo xamante ne bii deen ko war a sàmm kon loolu muy am solo loo xamante ne eh, ñëpp war nañ ko bàyyi xel te liggéey boobu comme niñ koy waxee sëñ Tuubaa lépp loo xamee ne ña ngi koy defal ci lu baax fekk na ñaan na ko ba yàlla may ko xanaa kay koo xamante ne da ngay ñaan yàlla bokk ci ñi yàlla nangoo ñaan gi ci ñoom yàlla boole la ca kon loolu tey liggéey bu rëy la boo xamante ne yéen ñii am ngeen ci rôle bu mag bu ngeen ci joué ndax defe naa ne comme ni ma koy waxee toujours ña nekk diggante Touba ak Njaaréem wala ña nga xamante bi ñoo nekk Sénégal xëy na mbir mi fépp la jafe mais ci yéen la gën a jafe ndax da ngeen a war a fexe ba doon ay ay ay ay ambassadrice yu l'islam ambassadrice Maam Jaara te nag defe naa ne nekk ambassadrice bu Maam Jaara defe naa ne am na noo war a mel am na noo war a comporté woo am na looy war a bëgg am na looy war a bañ kon bu nekkee fii fexe ba jéem a fexe ba comme comme ni ñu ko waxee jamono ji day soppeeku ñu bari dem nañ ba nekk fi ak seen njaboot bu njëkk xëy na seen bopp moom la ñuy fexe ne ko siiw waggar ko ba lii këfee wala lii féfee bañ leen a féef waaye léegi bu ñu ca doolee nag nga am ak njaboot am ñoo xamante bi da leen a war a jubbanti ñu nekk ci société boo xamante bi kenn ku ne xam na ne mel kon defe naa ne fa muy war a commencer mooy yéen ci seen bopp ngeen ko war a tàmbalee. kenn ku ne gis na kat li xew ci àddina bi defe naa soxna si soxna li suñ junj na ci tuuti bu njëkk valeur yi ñu am jële ko senegal war a ñëw fii ñu nampatal ko ci ñun bari na ñu bari ñoo xamante bi bu ñëw ba fii loola dafay mel ne def leen a réer ndax jamono lu ci soppi nit dafa yomb kenn ku ne gis na ne foo dem ci àddina soxna yi nekk fa duñ ne lépp kenn du jox toor soxna yi waaye ay jafe jafeñ mi ngi commencé am ay problème mi ngi commencé am ñuy dugg ci yoo xamante ne bii ñun musuñ koo xam ngay dem bay gis ñuy demante ay tribunal dégg nga ñuy génn seen i jabar wala ñuy génn seen i jëkkër dégg nga mbir yi di am problème yoo xamante bi lépp ngir àddina te ñun defe naa ne la ñu lislaam waxoon sant ñu ko mooy ànd ci jàmm ànd ci sutura ànd ci teraanga wala tàggoo ci jàmm tàggoo ci sutura tàggoo ci teranga te loolu defe naa ne fi am na ñu bari ñoo xamante ne jamono jaay na leen du lépp kenn du ne ndax man damaa defe ne lu ci bari sax mën nañ ne responsabilité ab góor la comme ndax comme ni ko soxna si waxee ndax jigéen gannaaw maanaam ni yàlla bindee tax na ñun suñ culture ak suñ diine ñu maanaam la ëpp ca ak kilifteef ñu jox ko góor jigéen ji mooy fekki mooy def lépp kon góor gi itam war na koo mën a yërëm war naa mën a yëg loola kat yëg responsabilité ci moom ba même sax maanaam bu ko jigéen ji xëy na euh, kon nga xam ni <laughs> day yëg responsabilité ne mel ne sax kooku nu mel moo ko war a melal ndax tey su fekkonte ne bii lam la la ko war dëgg-dëgg ci ak jubbanti ak jàppale ma nga ca kon xam ne xëy na mbir mi du du du du ak foofu jigéen ñi itam noonu jigéen ñi itam war a am responsabilité encore ndax lépp li li li xew lépp ñu ngi koy ñu koy maam ñu koy gis ñu ngi koy xam jóge ci société boo xamante ne bii bu ko def sa société nga ñëw ci société bu bees lu bari lii xiirtal nit nekk fi li nga xamante ne bii mooy tax nit war a mën a ñàkk ngorom nekk fi li nga xamante ne bii nit mooy tax mu mën a maanaam jaay diineem nekk fi loolu lépp itam kon defe naa ne ngor. gi nga xamante ne bii moom ngeen fi indaale loolu moom ngeen war teg seen kanam toujours di ko xalaat góor ak jigéen a ci yam ñu xam ne fii ñu nekk sori na te kenn koo xamante ne bii yàlla boole na feek nit moo xam moo xam moo xam eh, eh, eh, yaa ko fi indi moo xam fi ngeen ko seqee toujours teg seen kanam ci ne li nga xamante ne bii moom lañ am ci ay valeur ñun àddina wërta soppeeku bañ maanaam fàtte ko te loolu foo dem ci foo dem fi ñu toll dëkk boo dem réew moo dem ci biti ma nga fay am nit séq na fa noo xamante ne bii benn góor ga def na lu ñaaw ñaaw soxnaam wala soxna sa def na lu ñaaw borom këram kon nag yéen na ngeen fexe ba loolu ngeen mucc ci na ngeen fexe ba loolu ngeen bàyyi ko xel nangeen fexe ba loolu ngeen maanaam euh, di ko moytu na ngeen fexe ba loolu ngeen di ko wattu kon nag loolu muy lu am solo te defe naa ne bu ngeen maanaam yittewoo toujours di def lu leen di boole ndax mbooleem ndegam fi ñu toll jamono ji góor ñi ndajam góor ñi sax mbooloom góor yi sax mu am problème kon mbooloom jigéen dafa raw waaye nag loolu toujours rek nit bu demee ba ci kanam day taxaw euh, jàngataat def autocritique teg boppam fële seet lim nekk lan moo ci maanaam jub jub ci lim weesu ngir mën a euh, maanaam saytu dëgëral fi mu toll mën a waajal itam fa nga xamante bi foofu la jëm yuñ bëgg ni sër euh, euh, Sénégal loolu muy lu am solo bu leen ci xeeb seen bopp bu leen ci yéemu ndax ndax tey ndax xam ngeen sooroor bi nga xamante ne mooy sooroor bi mu tuddee Lamp Fall lu ko andi sëñ Fallu bi mu gisee Cheikh Modou Moustapha di rëdd li nga xamante bi mooy fondation jumaa ji xër gu Cheikh Modou Moustapha xër booba jamono ni mettee dégg nga nga xam ne daanaka kenn kenn yorul dara dégg nga muy problème mu gis ko waxu ko de ci xolam rek la xalaat ne li lii rëy na waxu ko nee na loole mu xalaatoon ba mu dem ba yëf yëpp ñëw nekk ci loxoom dégg nga mu mu sof ci liggéey bi Cheikh Modou Moustapha bi ba liggéey bi yegg kenn ku ne gis na ne sooroor bi lañ mujj a defar ci jumaa ji presque daanaka bu bu mag bi dégg naa ñu ne mu ne lam xalaatoon rek ci xelam rek yéem rëyaayub la Cheikh Modou Moustapha sembu loolu tuubee sooroor boobu kon yéen itam waru leen a xeeb seen bopp ci benn nisër wala benn liggéey boo xamante bi yéen dañ koy participer ci liggéeyu Sëñ tubaab bi jigéen ñi yéen itam fexe leen ba bu leen kenn man ci liggéeyu liggéey euh, bi nga xamante ne mooy liggéeyu Maam Jaara bi loolu ñu wax yéen mën nga ko ah yéen da a am chance boo xamante ne bi mën ngeen a participer ca liggéeyu Maam Jaara ba nekk Sénégal waaye itam mën ngeen a liggéey fii ci fi ngeen nekk encore ci njabootuk lislaam gi fi nekk seeni njaboot yi fi nekk dégg nga te lépp bu ngeen ci takkoo waajal ko dégg nga dégg ko man kon xëy na am na ñoo xamante ne bi xëy na fee dong lañ mën a jàpp yéen nag mën ngeen a jàpp fee mën ngeen a jàpp fii kon bu ngeen yaafa sut rek kon defe naa ne kon fu ngeen bëgg di ngeen fa yegg kon defe naa ne sëñ sëñ maxtar comme ni mu ko waxee gën a soññaat te itam waxi kese ak xalaati kese ak ay féewaloo mënta yóbbu lenn fenn faaw ñu bàyyi wax yu sew yi faaw ñu bàyyi détails yi te sóobu ci liggéey bi fawuñu ñu bàyyi détails yi faaw ñu bàyyi li nga xam ne mooy wax yu sew yi te soobu ci liggéey bi ngir mën a jëm kanam kon defe naa ne lii bu ñu wax dem ba xalaat ne ci seetlu dëkk ba luy defar ay ay maanaam cer gi di ko saytu dem ba gis fa def donte sax ma nga fa waaye bëgg seet yu gën a dëppook jamono ndax defe naa ne kenn ku ne xam na ne Cheikh Mamadou Lamine li mu fi nekk lim lim tuut tuut li ay waajuram liggéeyoon moom itam bi mu liggéey lu mu wax te loolu ci Sëñ Fàllu la ko jële bëgg na nga xam ne sëñ Fallu la nangoo mu ne bëgg na lépp luñ gis Madina dégg nga maanaam luñ nañu gis ko Touba waaye ñu gis lu ko nuru ñu yem caa roy dégg nga ba tax na euh, kenn ku ne gis na ñu indi tàndarma yeeg génn naa nga nag décoration beeg gis nga mbaaree fa nekk yépp te nga xamante bi man nekk naa fa juróom-ñaari waaye mbaar yi Touba tàmbulee ci boppam sax bokku moom bokkut ak ñoom yañ commencé woon ba mën a am yoo xam ne bii maanaam eh, eh, électrique ko ubbi kon loolu lépp tam yéen lu ngeen ci bëgg a def bu seen yéene rafetee rek bu avancé wul rek yéen yéen war war ngeen seetal seen bopp su ngeen ko mënul rek war ngeen seetal seen bopp yéen tam liggéeyu soxna jaara bi nu ngeen ci bëgg a jàppee nu ngeen ci bëgg a def moo xam fële la moo xam njaboot gi nekk fii ndax tey man defe naa ne yéen war ngeen a takku ba tey daayira soxna jaara bi jëbëfam dégg nga mooy taxawal daara yi fii moo koy soutenir donc moo koy jàpp loolu nag bu ngeen ko mënul rek war ngeen a seen bopp kon semb yi ñuy semb itam lépp mu jëm ci liggéey bu lislaam bi lu ngeen ca mënul rek kon da ngeen war a xam ne ci yéen la ndax kat comme am na benn addis bu koy wax kuy ñaan bis bu set mu ne képp koo xamante bii la ngay lekk léwul dégg nga doon la ngay def baaxul boo doon ñaan fii ba suba naka la ñu nangoo sa ñaan waaye ñu itam buñ àndut buñ juboowut buñ bennoowul dégg nga dinañ sonn dinañ wax dinañ xalaat waaye duñ dem fenn kon yàlla nañ yàlla bañ a boole ci ñooña kon maa ngi leen di santaat di leen gërëm tey ñaan yàlla liggéeyu sëñ tubaab bi yi nga xamante bi fii di sant nag mboolem kilifa yi yi nga xamante ne bii ñoo fi nekk te comme comme bu fekkoon tamit sax dañoo toog fee képp jàppuñ ci liggéey bi teewut yéen leen war da ko def waaye ñoom ñu comme ni ngeen ko waxee ñu futtiku xàmmewuñ seen bopp doon kenn ci liggéey moo xam ci góor ñi la moo xam ci jigéen ñi ñooñu itam ndax buñ dikkee fii seere yi ñu fi seedeel ne ñoom kat ay kilifa lañ waaye leen war ñu ngi ci dégg nga ñu ngi teete nit ñi ñu ngi boole nit ñi dégg nga ñu ngi jàngal nit ñi loolu buñ fi déggoon leneen loo xamante ne bii du loolu itam mën nañoo bañ a neex waaye kon sant nañ yàlla ba ñëpp fuñ dem fu ne dañu seereel ñi xam ne ñoo fa ne ci ci ay kilifa li ñëpp leen war ñu ngi ci kon tam ñu leen ñaan yàlla gën leen a defal tawfeex di leen ñaanal yàlla mu gën leen a boole yéen te liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga xamante bi mooy liggéey lislaam rawatina fii ci réew mi yàlla nañu yàlla boole ñu ñëpp ca ñamuy doxe ci seen loxo ndax li may ragal li may ragal li may ragal toujours sëñ Tuubaa dane indi uxaat nasara turra fii ardim li maliki muttara dina wax ak nasaraan yi seen dëkk ñun ñu nekk fii di wax ak suñu bopp di xuloo ci suñu biir di féewaloo di ŋaayaloo ba ñeneen ñëw dégg nga liggéey liggéey suñ tubaab yi suñ place ndax sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ba leen sëñ sëñ tubaab waxee jumaa ji ne leen bu ngeen ko defee dangeen am li ngeen bëgg man am naa leen bëgg bu nopp bu ngeen ko defut ay mbindeef dinañ wàcc def ko ñoom booba bu buñ tànnoon solution de facilité kon tey nëgë ni dinañ toog de ñu defal seen jumaa ñu di ko puukari woo waaye déedéet dañoo tànn solution bi gën a difficile muy defal ko seen bopp mais loola ca la solidarité jóge ca la am jëm jóge ca la bëgg sa bopp jóge ca la dem bañ bañ mën a liggéey jumaa joo xamante ni bi tey am na ay nit ñu jóge bitim réew dikk ne mënuñoo xam ne kenn mën naa def ci àddina bi rawatina dégg ci Afrique lu mel nii dégg nga te jotuñ sa leetar dégg nga mbaa ñu jot sa ndimbal kon yéen itam bu ngeen góorgóorloo ca loolu ngeen war a roy loolu ngeen war a seet you know you know we are welcoming you know the brother Jibril you know he you know Islam nine years ago but you know he became Murid maybe two months ago you know through dreams he you know dreamed and uh, you know some words that, that Sheikh you know uh, told him in in you know his, his dream. Then he was uh, looking you know in Google those words you know it, it, those words was Wolof you know and then he was you know uh, you know uh, surfing in Google you know and he uh, you know knows, you know, the name of Sheikh Ahmad Bamba, in a very strange way. And then, you know, he became Murid. And, you know, Alhamdulillah, one of, you know, of Sheikh Ibrahim Anyas guide him to me so that I am the first, you know, uh, one who, he meet, you know, among Euh, family of you know grandson of Sheikh Ahmad Bamba, and you know we you, uh, you know we have to try to attract them, to teach them, to welcome them, and to explain you know what we are saying, because you know make somebody you know <laughs> you know embrace Islam, make somebody join our group is you know very easy, but you know, we have, you know, we have to maintain them, you know, you know, you know, you uh, uh, to him, uh, because me, I, think, ñun li ñu xamante ne moom la ñuy fàtte toujours liggéey bi dañoo war doon sabab si mais wërta waruñu doon. objective bi our target is not you know the murid the target is you know you know the mankind and you know the, those people you know who doesn't know Sheikh Ahmad Bamba who doesn't know anything about Islam but our behavior is different we are enjoying ourselves you know we are planning for, for you know, uh, you know for ourselves man maa ngi defee ne kenn képp ku xam ku mënoon fexe ba bis bu set wala weer wu jot wala at mu jot kenn koo xamante ne bii xamut lislaam nga xamal ko ci yow waaye ñun li ñuy def lépp ñun la ganale suñu bopp dégg nga naan suñ kii diggu suñu xasaay daal dem te loola même place yu ñuy yu wut sax ñu ngi wax kër suñ Tuubaa lu am importance mais même baatu kër gi fàbbi nañu ba lu ñuy wut foo dem ci réew yi fuñ fanaan fuñ toog saal man fanaan attaaye loolu lañ njëkk xalaat te loola moo war a mujj am na kër Sëñ Tuubaa njënd yoo xamante bi fanweer nit mënuñ faa daje daayira sax mënuñ ko faa def parce que la war a def mooy local fuñ julee fuñ jànge nga xamante bi ku bokk ci ñu ne ku bokk ci ñu ñëpp lislaam lépp dégg nga bokk ko bu ñu demee ba am loola nag bu ca fuñ mën a tëdd fuñ mën nopp loo xaj parce que liggéey bi defe naa ne ñëwuñ pour noppalu dañoo ñëw ngir liggéey dañoo ñëw ngir tasaare lislaam jaarle ko ci jàngale Sëñ tubaa fi ñu toll loolu yéen itam loolu loolu bu mu leen dal yéen a ngi koy wut mais bu ñu waxee kër kër kër ba ngeen wut kër foo xamante bi ñaari néeg saala fay nekk ki nangam nangam da nga ay nit ñëw di fa dal loolu taxut kër Sëñ Tuubaa jóg Sëñ laa dane kër lislaam alhamdulilah nag léegi ñu ngi koy dem boo demee Detroit loolu moo fa am salle de conférence bu ay junni nit xaj jàkk ay restaurant lépp nekk fa nga dem Brescia ci Italie loolu moo fa nekk nga dem Rimini loolu moo fa nekk mu des nag encore fexe valoriser li ñu am ndax defe naa ne comme ni ma koy waxee plus de 60 ans ñu ngi ci àll bi mais suñu wàllu koom léegi léegi léegi si mu taxaa tudd na ko ni ñu doxale suñu koom ña fi ñëwoon 79 ak 80 soppiwuñ ci virgule sedd leen loolu économiste yaa ngi fi amut bu buñ soppi ko buñ soxlaa laaj su matee mat su matul ñu lépp dégg nga bu wala mu yem ca buñ soxlaa ju laaja leen war nañu am tey système boo xamante bi tey am nañ ay yoon yu lislaam gërëmloo ndax sëñ Mourtada lu mu def tijji entreprise dégg nga am am transport dégg nga di loué ay kër ubbi boulangerie te doomi Sëñ Tuubaa bu taxawoon lu mu laaj dégg nga waxtu mu ko bëgg dañ ko jox waaye déedéet bëgg ñoo woon aw yoon moo tax kon ñun ñun dafa mel ne ba muy wax naan kër lislaam ñu ne kër Sëñ Tuubaa ñun mu ne kër lislaam booba ñun rek fi ne xamuñ woon ne ñam ak njaboot boo xam ne ñoom dinañ ko soxla xamuñu woon ne tey li kër yi di jariñ dégg nga dina ko jariñ kon nañ seetaat dama ne duñ moderniser suñu pas-pas mais nag moyens yi ñuy war a jaar ngir liggéeyal suñu pas-pas dañ ko war a moderniser tey war nañoo weesu dajale dégg nga lii ñu yóbbu ko addiya lii ñu kanale ko suñu bopp mu jeex bu toogee ñu laajaat am na am na ay ay yoo xam ne sax ñii dañu ne ci heure bii ñii dañu ne ci heure bee am heure yoo xam ne dem nañ ba am ay kër wala wala wala ñu am leneen bu nit ñi demee ñu am problème. tey nañ xalaataat dellu dellu suñu xel te xam ne tey na nga ne naa fekk fee ca Italie même fii ci yéen ñu am ay alimentation yoo xamante bi dégg nga euh, maanaam mboolam Sëñ Tuubaa ko moom dégg nga am ay ay ay lu ne li nga xam ne ñu ñu ngi koy soxla di guur ci ñeneen ñeneen ñu ko am dégg nga gënuñoo yeewu gënuñoo muus dégg nga ëpp ñu xel waaye ñoo gën a ànd képp tey fee ca Italie lañ fa dajale ci xaalis lañ fa jaar nangam nangam bu ñu fa nekkee ba léegi bi bu set la ñu am di gën a wàññiku am na noo xam ne bu ñu ko doxalee woon tey tey waxuma dara mais ay banque sax ma nañ ko fa am yoo xam ne ñoo ko moom te fi dool dara desu ci lu dee lu weesu lañ ca lañ ca am sax akus néew am na ci réew yu bari yoo xam yoo xamante bi lañ lañ dem ba am ko sax kër l'islam ñi ngi am problème kon nag nañ seetaat you know Euh, comme ni ma koy waxee ñun duñ modernize our faith but you know we have to you know uh, modernize the means by which you know we serve our faith asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ma ne ko jërëjëf Mbacke am na solo trop ji sàkk la xeyran